bon tay dañu ñëwoon euh, fi ñuy wax Kër Bakary ñëw rencontrer ci wa la population de Kër Bakary euh, bu ay jigen yo xamné ni dañu nekk ci yor seen ben groupement donc di liggéey ñu ñëwoon fi nak am yenn jafé jafé yu ñu waxoon euh, temps yële aussi ginnaw waxoon ñu ay jafé jafé yu ñu doon rencontrer manam Kër Bakary dafa manqué won ay matériel yo xamné ni pour yu ñuy utiliser ñom buñ amé amee événement ñu waxoon ñu si donc bi ñu si waxee woon nag ñun aussi ñu uuti woon ko yàlla dogal muy doog a sotti ñu ñëwoon di def remise bi rencontré leen waxtaan ak ñoom aussi si projet bi nga xam ne moom la jiitu réew mi am ak le premier ministre Ousmane Sonko pour xamal leen ne leen kat développement personnel fu muy njiitoo développement fu muy njiitoo mooy si développement personnel mooy nit ki d'abord mooy développé ba pare doog a jéem a jàppale askan wi donc conscientiser jigéen ñi de telle sorte que ne ñoom ñu xam ne ñoom dañu war a participer si projet bi loolu moo doonoon sababu dajee bi tey waaw suivi bi si am ñoom dinañ ko defal seen bopp ndax indi nañ leen euh, ay cin yu ñu war a mën a toggee indi nañ leen quatre cin indil nañ leen aussi des bonbons de gaz indi nañ leen ay kuddu cumwa indi nañ leen ay cuillère aussi euh, donc ak ay booli loolu yëpp pour ñoom ñu jàppalante seen biir jéem si liggéey de telle sorte que ne fii ak déwén balaa ñu dajewaat ak ñoom ñoo euh, ñu fekk ñoom ñu gën a avancé yokk affaire yi daal. waa Kër Bakary du Kër Bakary rek problème bi dafa bëri si campement Ngeko campement Ngeko problème bi dañ fa bëri. ñun nag liñ man ñoo ngi siy jéem ndax euh, da euh, temps yële si ginnaaw ñëpp xam nañ ne campement Ngekokh dafa am problème mu éclairage campement Ngekokh am na problème mu assainissement campement Ngekokh am na problème mu tali donc buñ nekkoon fii di liste problème yi nga xam ne moo am si campement Ngekokh duñ fi jóg ñun nag am na yoo xam ne ñoo ngi koy jéem a saafara ak suñuy propre moyen si euh, si éclairage bi ci la bokk indi woon nañ presque lu mat deux cent cinquante lampadaires séddale ko dans toute la commune de Campement Ngeko y compris Kër Bakary ñoom tamit amoon nañ si benn lot de sept lampes donc dama bëgg rek autorités yi jàppale waa Campement Ngeko jàppale jigéenu Campement Ngeko parce que jigéenu Campement Ngeko ay jigéen ñu am euh, fulla lañ ay jigéen ñu brave lañu. dañu leen war a financer pour ñu mën a defar ñoom tamit seen projet yi nga xam ne moom lañ am loolu maa ngi ñaan jiitu réew mi ak son premier ministre Ousmane Sonko ñu gaaw ñëw Camp ko xool waa Camp Manguekho jàppale leen jeunesse su Camp ko aussi sonn nañ parce que seen stade bi daf ba léegi depuis presque des années ñoo ngi jéem a construire stade bi mais ba léegi stade bi pareewul te Kambangue ko xam nañ niñ mel si football dañoo bëgg football ñoo ngi ñaan autorités yi nga xam ne ñoom la fi yàlla teg te Kambangue ko dugal si seen dugal si loxoom si niñ faloo ndax score bi Kambangue ko am si présidentielle yi mosu ko am 9000 voix la fi kam la fi la fi coalition Diomaye président amee donc ñun ñoo si nekkoon di xeex ak ñeneen dañoo bëgg ñu ñëw jàppale jeunesse su Kambangue ko jàppale jigéenu Kambangue ko def Kambangue ko am assainissement ndax Kambangue ko nawet bi nit ñu sonn nañ. donc agression yi bëri na Kam Mangero dañoo bëgg autorité yi jàppale jeunesse su Kam ay ak jigéenu Kam Mangero. waaw liñ siy wax mooy que xam nga Kër bakkari si Ngerox la bokk mais dafa xaw a dugg tuuti si biir Kam Mangero presque ay 3 à 4 kilomètres li ñuy ñaan autorité yi mooy bu ñu si mënee jàppale aussi mooy Kër Bakary war nañ fi def tali boo xam ne nii da koy relier directement ak kàmmaange ko bu ko defee dem bi ak dikk bi yomb loolu la ñuy ñaan suñ borom autorité yi nga xam ne ñoom la fi yàlla teg ñu jàppale waa Kër Bakary. ñun nag suñ voix fu mën a yegg dinañ ko fa wax pour que ñoom ñu jàppale lépp loo xam ne ni jafe-jafe la si Kër Bakary si jigéenu Kër Bakary ak jeunesse su Kër Bakary mais plus particulièrement à la population de Kàmmange wax dinañ ko fa wax